di sant yàlla sunu borom di nuyu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ziyaara di jiital ci ziyaara bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom sàmmal ñu ko te doon ñu ko tam di ziyaara. Serigne Cheikh moom Serigne Salih mi nga xam ne mooy juróom la ñu tuddee bis bi di nuyu tam di ziar Serigne Abou Abou Barak xalifa Cheikh Mouhamadul Fadl ak mboolem njabootu Cheikh Mouhamadul Fadl waaye nag di nuyu di ziar seen doom ji leen fi teewal di sunu kilifa muy Cheikh Mouhamadul Moustapha mu àndal ak rakkam yi mu àndal eh, ak bokkam yi mu àndal di ko ñaanal sunu borom ku dal fa ndax bu dem aaliya pencum aaliya la nga xam ne sëñ Moustapha mu wax nee na ku yokkul da ngaa wàññi waaye ku fa taxaw da nga xam ne am na pas-pas ci kër sëñ Baay te soo waxtaanee moom waxtaanu biir biir ne da nga xam ne am na yéene ci kër sëñ Bara ak njabootu sëñ Bara kon yàlla yàlla mott bi sa yéene wala àgg ci fu kawe sa jot bis bi ñu tuddee nag sëriñ Saalihu euh, diggante sëriñ ak sëriñ Faliilu da doon diggante bu sori kon mel na ni dañoo dellu mbaatu rek ca Moustapha toog ak Serigne Bara Makhtar Diakhaté ñëw nuyoo mu naa ko ndax yaa ngi fàttali ko ba ma daan dawalal yóbbu ndànk mu fi jiite Tabaski mu ne ko maa ngi koy fàttali daanaa ci ànd sax mu ne ko kon booba xam naa ne lu tuuti. daal di geesu ne ndax xam ngeen ne sëñ Fallou moo tax maxtaar yi sëñ sëñ saa yi ndax xam ngeen ko ñu ne ko déedéet mu daal ñu nekk le xista ba nas sëñ Fallou joxee maxtaar daxaar sëñ saa yi te loolu ñu bëri xamuñu ko euh, kon lu xóot la ko sori bis bii nag dafa am cosaan ci kër mooy sëñ Daake fa la tàmbali door a ñëw Touba bi muy loo xam ne ay kilifa ñoo ko samp muy Serigne Fall ak Alaaji bu naama bi Serigne Fall boo boole ko ak Alaaji Baar ñoom ñaar ñu sàmm kóllëre yi kenn ku nekk ci wet dama ko sàmme loolu moo indi bis bi moo indi détail wax ngeen léegi léegi nag diggante Taraba ak Touba waaye jiitu na li ñu wax yëpp ndax xarit Samba Sadio ceeb bi la ca xew ak taxawaay ba Serigne Touba taxaw ak nag sëñ bi lu ñu doog dara la nekk ni xëyul xëyul xëyul ca waxtaan waaye taxawaay la boo xam ne Serigne Touba taxawoon na ko ca booba euh, na. Euh, su ma ñëwee nag ci waxtaan bi nga xam ne moom la fi a toog xam ngeen ne at yi weesu yëpp sëriñ daas day nañu seet benn thème boo xam ne moom la ñuy waxtaane tuddee ko déclaration Touba gi ren jii mu wax ne nañu waxtaan ci bëgg sa réew bëgg fi fi nga dëkk suñu da koy mooñaale ak doomu aadama kenn ku nekk da nga sopp fa nga xam ne fa nga cosaanoo fa nga dëkk te lislaam lépp loo xam ne yàlla da ko mooñaale ak doomu aadama lislaam da cay ànd ak moom buggi buggi ko ci lépp loo xam ne yàlla da ko mooñaale ak nit lislaam du ko ko xañ nelaw mënti ñàkk moo tax lislaam du ko xañ doomu aadama lekk ak naan dëkkoo soxna ak ñi nga xam ne nit mënu koo ñàkk lislaam da ci ànd ak moom kon nit ki fonk fi mu dëkk lislaam da ci ànd ak moom ndax nit ki nga xam ne fa ganee àdduna fa mboor jaww ja moom la njëkk ndox ma la njëkk a naan ñam la njëkk lekk mu gees gis loo xam ne ba mu doonee ndaw la ko daan gis loolu day yëpp wéttalu biir woo xam ne mënu ko am mënu ko am feneen fu mën a doon rawatina ngay gis say wajur gis say bokk ñu ne sa maam fii la say maamaat fii la ñu tëdd dëkk boobu day nekk lu rëy ci yow day nekk lu sori ci moo tax imaam Xasaali wax ne nit bu dëkkoon ca àll bu sori ba it fa lay gën a yëge jàmm xel wu dal ci feneen fu mën a dem boo demoon ba ca taax ya lu mu gën a gën lu mu gën a neex fi nga juddoo ak fi nga yaroo ak fi nga màggee lu mu àlle àlle mooy gën a sedd ci sa xol mooy gën a dal kon fi nga xam fi nga ay baay ak i maam ak i xarit ak i soppe euh, foofa doo yemale ak fenn te yonent bi nee na sallallahu nit ki bu xëyee yeewoo fi mu dëkk mu fudd dara méttiwul mu làmb poosam fekk ci lu fekk ci lu mën a fekk soxla xam ne soo ko yëgee ak soo ko yëgut ñàkkul dara ci àdduna man asbaha minkum aminan fi sirri muaafan fi jasadi indahu quutu yawmi fa ka annama xiizat lahu dunia kon nit bi bu nekkee fi mu dëkk dara rëccu ko te mu am lu mën a faj soxla nga xam ne ñàkkul dara su ñu waxee nag nit dafa war a bëgg fi mu dëkk bokkul ak ni ko xale yi gisee tey xale yi bala ñoo wane ne fii la ñu dëkk ak fii la ñu sopp seen équipe équipe nationale am match football su amee match football nag drapeau la ñuy wut kenn ku ne di ko takk ci wala sa oto di supporter sa équipe. su gañee sa xool seet waaye suñ ko gañee sa xool metti ñu bari ci ndaw ñi nag foofa lañ yemale bëgg seen réew waaye bëgg réew dëgg mooy kenn ku ne ci waa réew ma xam waru garam taxaw te tem di ko def na ko war a def fonctionnaire bureau la am wala maanaam wane ñu mu bëgg réew ouvrier mu liggéey ñu mu bëgg réew médecin buy faj sa la war a ñu mu bëgg réew militaire bu nekk ca caserne maa ngi jàkkaarloo seen wóor mooy sàmm salam waraam mën a wane nu mu bëgg réew Macky Sall bu ne ca tribunal sala ñoom ñëpp imam bi ne ci jàkka ji suy julli ni muy joxe ak julli nam ko waree ñeema tudd tam kenn ku nekk fa nga nekk noonu dafa war a waree ñu ko gisam réew mbokk yi ku bëgg sa réew da fexe ba ñu tabax ay institut tabax ay école yoo xam ne dañ ciy ak dañ ciy yar ndaw ñi dafa leen formation ba nga xam ne su ëllëgee ñu am lu ñu jàpp mbokk yi ku bëgg sa doo andi bon bon bon bon di compter ci ci diggante diine ak diine wala bon di compter ci diggante ak morom. bu bëgg a seen yow da ngay tàkk lépp réew lépp benn say xam ne kenn mënu caaga bàyyi sa morom mbokk yi bu ñu bëggee réew mi dañuy jàppale baykat yi ba jàppale sàmmkat yi ak nappkat ak artisan yi ba ñu kenn ku la ngay liggéey nga mën caa am teraanga ak sàkk waaye di bari te doo ci amee dara di napp te amee dara di sàmm sàmm te a amee dara kooku soo seetaanee soo ne bëgg naa sama réew kenn du ko mën a nangu nit ki xam ne nekk ci réew mi mu dëkk am na solo mooy mu génn am réew bu ngeen laaj nit ñi tuuti métier bi nga xam ne da ngay def nga mënti nekk te moo ne ñoo fi yóbbu kenn ku ne soo tukkee yaa yóbbu sa bopp nga génn am réew gannaaw ki génne boppam moom lay gis si moom kon ki ki génne réewam xanaa mu gën a nekk moo tax yàlla li mu gën a bëgg natt yi ne nattoo da leen xoolal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu ko firndaalee di ko firndaal ba suñu borom jox ko ndigal ngir mu gàddaay ngir Madina dafa joxal Màkka ne ko wallaahi innaka la xayru ardillah wa wa ahabbu ardillah ilallah walawla anni uxrijtu min imrati wax naa ci yàlla ne yaa gën ci suufi yàlla te yaa gënal yàlla ci suuf buñ ma génnee toon dëkk bi du ma génne te nit soo ko génnee fa mu dëkk rey nga ko walaw annaa katabnaa alayhim an iqtuluu anfusakum aw ixrujuu min diyaarikum maa faaluuhu illaa qaliilun minhum yonent yàlla Ibrahim fonk dëkkam moo tax mu ñaan ñaan ba mu ñàkk màkk ne rabbi jaal haada al balada aamina warzuq ahlahu min as-samaraat man aamana minhum billahi wal yawmil aaxir ba mu gàddaayee moom Moustapha ba Madina dafa ñaanal Madina ndax xam ne léegi fi la dëkk ne yow yàlla loo def màkk ci xéewal ak barke defal ñaaram Madina allahumma jaal bi Madina بعثي ما جاءته بمكة من البركة bu ñu ñëwee ci suñu sëriñ Cheikh Amadou Khali dafa bëggoon Touba ba mu dëkk ba ko yàlla wane Touba mu sañ ko da kaa sant yàlla wax ne shakartuhu li annahu qad saafani li watanin bihi nafaam daal di ñaanal lu Ibrahima ñaanal Makka mu ñaanal ko Tuuba wa ardahu ala ardi rizqin wa aman wa rahmatin wa saatin kulla awaan wajbu laha alxayra min aljihaati assitti wakiha an il aafaati ñaanal Tuuba kaaraange waqi adaaya وعربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزيدا moo tax nattu ba ñu tegoon sangam ba bañ ko ko tegee mooy dañ ko génne te génne bu métti da ko wax ne xusuur yi xalaat wal ahlu an yi tafarraq limadhi alladi anhum wahibu xasim waxaat ne axrajtumuni naafiqina bi annani abdul ilahi wa innani li mujaahid waaye ba mu ne nag ca liggéey ba ba am ngërëmul yàlla am la mu doon sàkk ñaanul yàlla toog foofee dafa ñaan yàlla ñibbi si waat fi xam ne fa la dëkk ni yassir bu ñu waxee ni tuuba wax adal wara wala fu tëdd sama iskaana ijaal bu ñu waxee ilaa kawni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 booba ba léegi di treizième édition yàlla dimbalu ñu ba at mu ne mu defal te defal ñu ci barke kon maa ngi jël kàddu yii di ko dugal ci kàddu yi nga xam ne dama koy teewee ci sunu baay bi yilif dëkk bi muy Baay Mataar te jot na sant waa dëkk bi waaye di sant suñu yëpp ñu jàpp ci bis doomu aadama fii may nuyu di sant di ko yóbbante ay nuyoo di ko taalibe bu nekk yi defee di ko yóbbante ci sunu sant bu tedd ba ak Cheikh Mountakha di ko yóbbante sëñ Abo Baraka mais di la jox sa nuyoo sa wàccuwaay bu bokk boo bokkul ak kenn Mbacke Balla Cheikh Moustapha Mbacke yal na yàlla guddal soo fan Mbacke sagal nga yoon wi sagal nga kër sëñ Fallou sagal nga sëñ Alaaji Baara sagal nga ñun taalibe yëpp yal na yàlla yokk soo fan ñi nga ànd ak ñun lépp rafet na may wëlbatiku ginnaaw bu ma sante tund wi sant waa dëkk bi ci ànd gi ñuy ànd ak ñun ngir defar bis ci ànd gi ñuy ànd ak ñun ngir lu ñu jóg ñu ànd ci ak ñun ba am ci ngërëmul yàlla ndax lépp li sëriñ bi tàmbali fii ci ndigal la. te doxuñu ci benn tànk boo xam ne nii day ñuri caaxaan wala leneen loo xam ne nii du ngërëmul yàlla kon lu ñu jóg gis leen lu sëriñ bi jóg ngeen àndak moom fu sëriñ bi taxaw ngeen gunge ko lu mu leen sant ngeen def ko kon kenn amul seen fay yéen waa Touba Gueye Yanthoul yàlla leen yàlla fay ma wëlbatiku dem ci sama jàmbaat bii muy sëriñ Galas sama sëriñ bii muy sëriñ Galas gor si muy Serigne Galas nit bu baax kii muy Serigne Galas sëñ bi sëñ Galas mii billaahi barke sëñ Fallu ñaara tax ma fonk ko mooy Serigne Galas jomb naa wax lu dul dëgg ma di ko seede te Serigne Galas ku gore la sëñ Galas lu mu la wax dëgg la ci moom Serigne Gallas ku gore la ku mën a muñ la Mbàkke loolu lañu ñu ànd ak moom mu di ñu tette ñu la amuñu lu dul sëñ Fallu tàmbalee ci sëñ Fallu yem ci sëñ Fallu te génnuñu fenn fu dul sëñ Fallu moo ne day ku fi toogal sëriñ Fallu xam nga li nga séq ak suñu waajur ba ñu jël ci bis bii ma ñu tudde ko Cheikh Saliou Mbacké sëñ ka wax na ko léegi su ma demoon ci kóllëre gi fa mu tàmbalee kon tey duñ fi jóge ci loo xam ne nii lu ma fekke la ak loo xam ne nii lu ñu dund la mais dama ciy nettali tuuti dañoo toog mu wooluñu keroog mataar mii nga xam ne sama baay sëñ Saaliwu la ko jox ñoo ànd dem waaw ñu dalal Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré xalifa Serigne Saliou Touré ñu dalal Serigne Cheikh Ahmad Bamba Touré xalifa Serigne Saliou Touré ñu dalal Serigne Cheikh Touré xalifa Serigne Saliou Touré jërëjëf Serigne Bamba ñu dalal Serigne Cheikh Touré xalifa Serigne Saliou Touré jërëjëf Serigne Bamba ñu dalal Serigne Cheikh Touré xalifa Serigne Salihou Touré. jërëjëf si Bamba jërëjëf si sa Touré jërëjëf si Bamba jërëjëf si sa Touré jërëjëf si Bamba waa kër Serigne Salihou Touré c'est normal ndax Serigne Salihou Touré lu mu am Serigne Salihou la moom Serigne Salihou benn la ñuy rendre hommage Serigne Salihou Touré ci bis. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, jërë ngeen jëf njabootu Serigne Saliou Touré ñoo doon dugg si loolu ànd ak seen xalifa bi Serigne Cheikh Touré sëñ mu toog noonu tubaarkalla sëñ Cheikh jotaay bi sa jotaay la Touré jërëjëf Touré bismillah jotaay bismillah Serigne Cheikh Touré ñu ngi lay dalal bu baax di la jox sa wàccuwaay bis bi dañ ciy fàttali ko Serigne Saliou Touré tuddee ko Serigne soo dugg seen nii nag day wane ni gerte gi nga jox bis xam nañ ko yàlla yàlla guddal sa fan sa yàggal sa yàggaay sa toogaay ci dara day Serigne Saliou Mbacké ma àndoon ak kon ñu déglu Serigne Saliou bi mu àggale kat. àggale rek ci fi ma yemoon te fi ak li ma ciy wax doomi xalifa ak Serigne Saliou bii mën na cee nekk seede sëñ Modou Mbaye Samb mii mën na cee nekk seede ak mag ñu bari mën nañ fee nekk seede sama baay nee nañu danañ toog fii jamono metti lool Serigne Saliou wàcc ànd ak Serigne Saliou Touré ñu dugg fii ba xaban dem fii ba bangaaj mu toog ci néeg bii toog di leen xaar suñu demee tojal ko yoon wi wax yi ànd ak ñoom dugg ci séeréer si dugg ci wolof si dem fu taalibe nekku jullit andi lépp daagaan ci Serigne Saliou Mbacké mii dañoo toog sëriñ bi woolu ñu ñu dem Touba bi ñuy dikk day taw mu boole ñoo sëñ Saal Jaxate sëñ Saal Jaxate daa du nga gis sëñ bi de mataar na ma nañ dem ma ne ko mukk du ma dem ñu toog ca wet gee ba taw bi sëwét bàq bi am ñu wëlbati ko ci geneen wet gi ba tool bi ba taw bi soobaat ñu toog bi mu nee kar set taxaw benn bunt bu ubbeeku ñu law dugg fekk sëñ Saaliwu toog ak donge daara bi ñu duggee toog sëñ Saal Jaxate nuyoo la ñu wax mu ne ko waa kër bu naa maa mu ne ko sama waa kër xëtti ma ne ma ku fa nekk ma ne ko man mu wax loo xam ne nii xëy na mënu ma koo nettali fii waaye ma wëlbatiku doon ko nettali xisa yi ma ci am ba ma juumee ca xisa ba dana dana ma sa bàyyi ba muy ndaw laa daan ñëw seet si sa maam Mor mu yan ko këllub suukar muy ànd man jëm ca kër sëriñ daaru ca banaaj waaye garab ba nga doon wax du new ak xël laa daan toog ak sa baay di noppal teguñu ca ban cinq jours mu làkk man Matar mi am du ma bàyyi ma kon ñun xam nañ kuy sëñ Saliou xam nañu fekke gis lépp lu mu def ñu gisit benn bis sama baay nee na dafa génn ci kër sëñ Fallou di dem kër sëñ Omar Anta Nguna bi mu jaaree fekk sëñ Fall sëñ Saliou rek mu toog mu jaar nuyu ko bi mu ko nuyoo nañ ma baal nag ci li may wax mu ne ko bu naa foo jógee mu ne ko ci sëñ Fallou laa jóge mu ne ko man ne dama laa bëggoon a yónni ci sa tànk yi nga dellu sëñ Fallou wax ko wax ko wax ko wax ko mu dem ba mu demee ci sëñ Fall sëñ na ko bu naa ma léegi nga fi jóge di mu ne ko waaye damaa dajeeg sëñ Fall yi mu yónni ma ci yow commencé di ko wax mu ne ko na fi yam ne ko fa sëñ Touba yenn koo lay yenoo bu paree jox ma lii moo waral di am tey ma ne Sénégal lamay may def ci transition di ko dugal ci thème bi mooy bëgg sa réew. gis nga ñi nga xam ne nii ñoo defar Sénégal ñooñu ñooñ ñi bëgg seen réew Sénégal ñi koy wër di xëccoo ko wax di ko tas du foofu mooy paramètre bu ñuy wax bëgg sa réew boo yoree Sénégal. wala nga bëgg Sénégal te xamoo la xewoon Pathé Badiane xamoo la xewoon Dexle xamoo la xew Samba Sadio xamoo lu nekkoon ci xelum suñ Tuubaa ba mu yëkkati tànkam bay teg ci liggéeyul suñu borom kon boo nee da yor Sénégal yoroo Sénégal te bëggoo Sénégal Mbacké ñi ngi jëm ci ay élection loo xam ne nii mënoon naa ñàkk ci ñun lu tax mag ñi dañoo xeex combattre ba jële fi tubaab bi ñu toog tubaab bi wëlbatiku ñëw imposé ñu système boo xam ne ñun noonu lañ war a gouverner l'ennemi d'hier ñëw wëlbatiku nekk avec une autre stratégie ki nga xam ne moo lay guider ci saw doxalin jox ñu langue jox ñu culture de rente jox ñu éducation jox ñu système politique jox ñu constitution ba léegi mi ngi fi mu mel ne Afrique dañ koo ragal a laal ñu andil ñu démocratie te préparé wuñu at mu nekk ñu ne dañuy organiser ay élection juróomi at yu ne ku nuy fal koo xam ne bala ngaa falu fu ne dinga fa wër waaye buñ la falee juróomi fan ñi di la saaga kooku naka nga ko mën a joxe am réew ne ko yor ki ñu fal mu téye am réew fàtte la ko mayoon réew ma yërëmatul ndaw yi yërëmatul néew doole yi ànd ak gàngooram di gouverner ci oppression clanisme bëgg a wëlbatu ma bëgg gësam réew déedéet da nga doon faj say aajo Sénégal gii li koy tas mënuñu ko sax waaye li koy tardeel mooy ñi war a wax dañoo noppi ñi war a wax dañoo noppi ñi xamul di wax ki toog ci plateau télévision doo spécialiste ci dara fekke woo dëmb bëgg na da ngay ci télévision bi les conflits li am Sénégal loolu ku ko def nga xam ko nga xamul yaa ngi ci lii tasum réew te boo nee da ngaa bëgg sa réew mën ta nekk ñu ne da ngay réew deux cent soixante sept personnes jóg ñoom ñëpp dañoo bëgg a nekk président la République soyons sérieux deux cent soixante sept jóg te ku ci ne ba ngay jóg xam nga la nga mën ak la nga mënul départ nañ ci deux cent soixante sept dañ xaar ba course bi ñëw di nga gis ñu néew te toog nañ cinq ans di taldal réew mi ci ay wax toog nañ cinq ans kenn andi fi xalaat boo xam ne nii dafa war a génn senegal génn Afrique ci ndóol gi ñu ne kan moo mën a développé wu ci langue jàmbur français rek la ñuy wax genn wàll gi xamuñu lu mu doom kan moo mën a dunde ci mbéyum jàmbur lépp dañ koy importe di ko indi te réew mi yàlla baawaan fi lépp mën fay bay kan moo mën a développé ci culture jàmbur ñu indi ñu système de la démocratie boo xam ne encadré wuñ ko wala àndul suñuy valeur àndul suñu aada suñu cosaan juróomi at yu ne boo nee damaa bëgg nekk président tuy yi balee jóg ci liggéeyam juróomi at lépp ñu toog ci ñetti weer yàq ko ba dëkk bi tas tasal pourquoi pour être président te boo toogee ba nekk président boo amul chance Pape Djibril Fall ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant sa teewaay waaye Pape su la yàlla joxoon réew mi maa ngi lay dénk yii ndax looloo faagaagal ñi fi nekk ñëpp soo dee président su la yàlla dimbalee dangay ngay ak borom xam-xam te ab dépense am nag. ku dañu réer te amul réer. ku dañu réer. amul reer ca wolof yu jóg gis nga kooko foo toogee moom lim lay wax mooy matoon na ko ak matoon naa def ak ëpp waa ëpp naa def ak ëpp naa ñàkk def loolu rek la lay wax waaye boo toogee ci daraam matul muy un laudateur walla xamul luy bëgg Sénégal xamul lu mën a def ba Sénégal taxaw fi mu taxaw lii rek la lay wax tu en as le droit man nga ko soo ko deful ci yow la boo ko jaay ak sañ nga ko yéeg bu kooku est-ce que amati na temps xalaat réew mi li mu am temps mooy ay stratégie ba mën a yàgg ci nguuram mais xalaatatul ndax xamul li Sénégal yi dox sëriñ bi mi ngi wax léegi bëgg sa réew di wax ci immigration clandestine j'ai fait vingt ans en dugg fu ne dem Amérique latin liggéey ci ay système yoo xam ne nii gis nga xale yi Sénégal yii tubaab bi dafa lànk na dootu leen jox visa parce que kuñ ci jox visa li Europe tëgg ci ay droit dañuy mën a def li ñu naan la migration circulaire boo demee am fa juróom benn weer liggéey yor bu yàggee Afrique développé wu mais dañuy ubbi géej gi kenn bu ñëw gis nga bu ñu dajee wax seen télévision yi ne bu suwaa dañuy rapatrier kenn lañ rapatrier ndax lii juratuñu seen population màggat na am nañ crise amatuñ main d'œuvre te bëgguñu Afrique développé ñu fexe ba ndaw yi di am yoon wu ñu jaar di ñëw bu ndawi Afrique genn wàll ji dee geneen wàll gaba àgg ñu yóbbu leen ci seeni tool seen i poulailler ñuy béy légumes di béy ay fruits oto yi di ko jël di ñu ko indilaat ñun ñu koy lekk ñuy yóbbu ci seen i tool ñoom bu ñu xëyee seeni doom dugg ci oto yi rafet dem jàng voilà le système blanc voilà ce que l' Afrique est devenue lii moo tax ba Afrique mënatul développé Sénégal nanu bëgg Sénégal bëgg Sénégal bu responsabilité état mais responsabilité ñëpp ñu nekk senegal ay nit a ngi Sénégal su ma jaaree ci autoroute à péage bi dem Dakar su ma xoolee sama côté gauche damay xool espagnol ya fa nekk di liggéey ay tonni tonni tonni tonne di ko déverser ci marché européen bi te su ma retourné waatoon ñëw Thiès rek su ma fëggee ñetti nit kenn ku ci ne man nga fukki yoon la espagnol yi liggéey di ko def mais seen xel na lu ci lekk jënd kër tabaxi kër tëdd fa ñu tëdd yem ci seen biir au lieu mais naka nga bëgg sam réew soo dul investir sur l'humain doo investir sur la santé doo investir sur l'éducation doo investir ci luy développé nga toog na man ku bëgg sama réew laa da ngay sa bopp sa bopp ngay defar sa aajo ngay faj waaye baaxul Sénégal ak leneen dara ñëwul man dama bëggoon ñu réformer Pape yéen ñi nekk ci système politique bi ñu xoolaat bu baax réformer waat suñu système de gouvernance réformer ni war a dundee réformer suñuy njiit réformer suñuy constitution dëppale ko ak suñuy aada ren ku ne xam ne Sénégal ni mu yëngutoo mais valeur président de la république fan la féete mais nguur gi dem na ba xamatul woon fu mu nekk bu dul loon góor gi muur te ne tekk te reeja rafet tam nekk Touba kon defe naa ne leneen la ñuy wax waaye duñ toog fii naa dañuy jàng rek kon loolu bu amee na politiciens yi xoolaat seen bopp xam ne dafa am ñu yor réew mi ñoo ñu yor réew mi ñu jox leen seen cër delloo leen liñ moom di gouverner pour doomu aadama yi mais di défendre senegal pour défendre noo intérêts supérieurs ak suñu mag ñeeg ñu fi jaar ba seen deret mbokk yi man nag su ma weesoo ci wax ji damaa am benn liggéey liggéey boo xam ne nii Serigne Gallas mii daaw fii lañ toog mu wax ko mu ne lu ñuy dox yàlla moo ci war a jiitu lu ñuy taxawal l'islam moo ci war a jiitu mu am néegu bi yàlla bu fi nekkoon mu ne néeg ba da ko bëgg a yeesal ñu taxaw ci waxtaan ci jël un ingénieur mu liggéey ci un architecte mu liggéey ci ñu jël un ingénieur mu liggéey ci ñu jël suñuy technicien ba xëy lépp taxaw ñu dem ci sëñ Muntaxa tàggu ko ba ñu tàggoo sëriñ Muntaxa sëriñ bi ànd ñëpp mu ñaanal ñu ànd ca defe naa ni weddi gis bokku ca image yaa ngi fii wax ca ànd gum ci ànd rafetlu gum ko rafet rafetlu yónnee Cheikh Moustapha ngi nii defe naa ni fii la yendu ànd ak ñun teg ko kon Mbacké li nga ñu defal ba tax ñu ñime fi nga ñu gunge ba gën a rafetal suñu jaamu yàlla mbàkke loolu yàlla nañ ko ànd ak yow ba ubbi jumaay jumaay jumaay jumaay te lépp fekk la fi tëgg jiitu keroog ba ñu jógee ca sëñ Muntaxa la yebal sëñ Moustapha mi ak sëñ Ahmadou Badawi ñu ñëw teg xeer wi ñu tàmbali liggéey ba muy une valeur de cent quarante millions ñun ñëpp ñu summeeku ànd ak suñuy mbokk ànd ak suñuy nawle fas yéene ko def ba am ci ngërëmul yàlla subhanahu wa taala mi tax ñu di ko def kon ñu ngi woote ñu ngi yëgal képp kuy jullit képp ku tub li seen mbokk mi tàmbali lii ñu bëgg a def ngir yàlla na ci ñëpp dugal seen loxo ñu ngi ñaan yàlla ku ci dugal sa loxo yàlla ko yàlla ful ba mu gën a kawe sa njort te lii yàlla àgg ba bu déwénee bu ñu toogee fii bu timis jotee ñun ñëpp ñu ànd julli ca darajee Sëriñ Tuubaa ko yàlla def amiin Sëriñ Tuubaa kon duma pare nag te gërëmuma ñi nga xam ne ni dañoo accompagner ci liggéey bi muy la Sénélec délégué bi yónnee Serigne Souleymane Wade muy le ministère dalaa sante bi nga xam ne fii la agent yi yendu tey une consultation médicale boo xam ne fu ne la nit jógee ñu ñëw joxlee garab faj la tatagal la dalal sa xel nga dellu te bu dewee déwénee nii lañ ñaan yàlla incha allah def ko di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm suñu baay bi fi jógee muy Cheikhu Thiénaba li mu wax du ma ci delluwaat yéen ñëpp dégg nga ko di gërëm suñu sëriñ bi suñu sang Cheikh Mbacke Fall kii li tax mu ñëw fii Cheikh Ibra sëñ Modou Moustapha ngir moom te sama baay damaa jàpp ba teg ci loxo ne ko kii dénk naa la muy ko gore di ko baax di ko bëgg mbokk di ko yëg ñëpp te di taalibe kon sëñ Mbacke ñu ngi lay gërëm sa déplacement bi nga ñëw fii di gërëm ak lu tënk ba yëpp moo du Seck ñu ngi lay gërëm di la sant léegi la fi xalif général jóge sëñ Babacar ñu ngi lay gërëm di la sant léegi la fi xalif général jóge suñu xol sedd na suñu xel dal na ndax nit soo jógee gis say mbokk soo wëlbati gis say dëkkandoo kon waroo dul sant yàlla te ñaan yàlla àggale fi ñu jëm kon mbokk yi fii laay dagg kàddu yi. di ñaan yàlla suñu daje bii yàlla nay nekk ay dajay dajay dajay man nag benn liggéey dong laa muy jumaa bi ci laay xëy di ci gont di ci yendu aw ma beneen soxla aw ma beneen yitte di ñaan jullit yépp mu ànd kook ñoom def ko asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu baar El Hadj Mouhamadou Lamine Baar ak Cheikh Mouhamadou Fadel ak njaboot Serigne Touba yëpp ah, maa ngi tuub nag bu baax yëkkati fi ay kaddu de samay sang rek ñoo fi toog ak samay kilifa euh, di am mbégte tamit yëkkati fi ay kàddu ndaxte thème biñ fi jël tey man dama cee nekk à l'aise lool sax mooy bëgg sa réew man docteur Thierno Ndour laa tudd ñu dippee ma maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru sama tur sax Ndaamal Daaru rek lañ may wax yàlla dafa def tubaab laa jàng jàng naa fanweeri at tubaab liggéey naa juróom-ñeenti réew ci bitim réew booy jamono jógee banque mondiale ñu indi ma OMVS ma yore di surveiller ndoxum dexum Sénégal ndox bu mag bi waaye li ma njëkk fekk foofu dama ca jëlee métit bu doy waar ba jàmbat ko sëñ Muntaxa buñ demee ba ci barrage yi Jama boo leen ko xamee ñaar fukki kilomètre la ak juróom benn ci ndar at bu jot dañuy tuur lu mot fukki junne juróom milliards ci mètre ci bu ndox mu neex ba fukki junne ak juróom ñetti milliards ñun ñu ngi jot ndox ñaar fukki milliards ak benn ci ñetti milliards dong lañ ciy jëriñoo li des fukki milliards ak juróom bu fukki milliards ak juróom benn juróom ñett bu taw bare dañ koy xëpp mu dem géej boo leen ko bu ma leen ko mënee xaymaal bu le septembre jotee seconde bu jot fukki junni ak juróomi junni yi barigo ndox lañuy tuur mu dem géej ndox mu neex jamono jooju Serigne Touba amul ndox mu métti ma lool nag damay taalibe bëgguma lu mooy doon ak taalibe Serigne Touba ma koy jàmbat bu egg ci sëñ Muntaxa mu ne ma ah loolu ma ne ko sëñ bi de. barrage bi ñu ngi ko defal 1986 fanweeri at ak ñett wee at bu jot dina ñàkk loolu ci ndox te Serigne Touba amul ndox nit ñi naan ndoxum xorom Touba nit ñi di béy ñaari weer ci at bi ba ñetti weer juróom-ñeenti weer yëpp xale yi ñu ngi ci biir dëkk bi di jaay ay matériel chinois mu ne ma ah mam Thierno loolu de doy na waar ma ne ko Mbàkke de man lenn dong laa ci bëgg mooy nga may ma ndigal rek ma woote borom xam-xam yi ci Sénégal yëpp. tey wuyo sëñ Tuubaa ñu fekk si ma mu ne ma jox naa la sa ndigal mu jox naa la ndigal 18 heures la ma jox ndigal 19 heures am naa 160 experts yi gën a mag yi gën a am xam-xam ci Sénégal ñoo xam ne ni réew yi ñu wër ak réew yëpp buñ soxlaa wàllu ndox ñoom ñoo leen di bindal ay projet te ki li ci gën a yéeme ki ci raw fuuf Touba la dëkk biir Daaru Manaan ci laa woote ñu fekk si ñu ne nag bu fekkee ne ñun ay experts lañ. man maa ca gën a néew jàng jàng naa fanweeri ak tubaab te bëgguma lu moy sëñ tubaab bëgguma lu mooy sëñ nag du bari bari na ba tuuti damay yokk aslëf rek ma ne sëñ Moustapha damay jaayante tey moom damay jaayante ci jumaa ji dama bëgg murit yi jóg kilo ciment ba ci cent million dama bëgg en cinq minutes ma xool dañuy def téléthon nit ñuy jóg ñuy woy nit nit ñuy jóg léegi lañ ma woy sama sidit jëmb ma joxe ku ñu woy sa maam sa yaram daw kuñ ne dañuy tabaxal sëb sëriñ nga jóg ànd ca kuñ na dañuy béy sa toolub sëriñ nga dem néegub yàlla baa ngi nii ci kanam sëñ Muntaxa murit yi damay laaj ñu jaayante man maa koy laaj damay déglu sëñ Axma sëñ Axma waxal eh jëlal ma kayit bi mu wax ñaata jëlal ma kayit bi jëlal jëlal jëlal tey déedéet Mbàkke man la man la taalibe laa jëlal léegi mu gaaw sëñ Moustapha cinq minutes rek nga baal ma ah, yóbbul ñu joxe sëñ Ahmad demal sëñ Saliou eh bis bi sa bisa joxel déedéet joxel tey Mbàkke Mbàkke yi rek laay laaj joxel waaye joxel ci biir la lim leen waaw waaye lim leen man ay bind bind ay chiffres laa bëgg de ay chiffres sëñ bi ay chiffres laa bëgg chiffres. digee dig dig leen ma rek waa nañ ma dig rek bu ma kenn jox dig leen ma waaw waaw baax na mais dig leen ma rek waaw jógal taxaw di jël dig leen ma dig leen ma dig leen ma murid yi dig leen ma toni ciment ay fer ak xaalis dig leen ma di ngeen ma dig de laajuma ci rajo yónneewu ma tukkiwu ma jumaa ji ñun murid yi nañ ko tabax ñun jullit yi nañ ko def dig leen ma dige góor ñu ngi def lu nekk ngir rek bëgg bis bi sëriñ Gallas Mbacké mi am ci ndam waaye yaakaar naa ku xool bis bi xam nga ni sëñ bi am na ci ndam ah ñu ko àndaloon nag muy daayira yi nga xam ne nii ci Touba Gueye gii am na daayira boo xam ne ci Touba Gueye li dëkk te aju ci sëñ bi am daayira bu nekk Kër Massar ci njiitul oustaz Camara mi aju ci sëñ bi am daayira boo xam ne bii ma nga ca xombal aju ci docteur Fallou jaañ Male ak euh, géwalu xaadim am daayira boo xam ne bii ñu nga cees ak bu nekk Touba boobu ba léegi noo ànd liggéey bi di ko liggéey a ah, liggéey bi nag yaakaar naa ni ku ko xool nii xam nga ni liggéey bi sotti na nuy sant rek nag di ñaana sëñ galas nag suñu boroom gën koo dolli taw ah Samba Kane mi itam ah, dañ koy beral cant ngir dafa taxaw taxawaay boo xam ne bi ci liggéey bi ah, kenn mën koo xayma ndax indi na fi teraanga joo xam ne ji ah, rëy na rëyaay goo xam ne gi daanaka defar na bis bi ñu ngi sant itam waa fondation sëñ baar ak waa fondation sëñ Fallou bi nga xam ne nii ñu ngi ñëw ànd ak noonu dimbali nu ci bis bi lu bari na loo xam ne lii xëy na sunu xam-xam wala sunu man-man àggu ci woon ñoom ñoo dikk jàppale nu ci teg nu ci yoon ànd kook noonu ba bis bi demee nii mu demee. kon nag ñoom itam ñu ngi leen di beral sant di ak di leen di leen di leen ñaanal yàlla ba ab sati àllaay baara itam tubaarkàlla macha allah ñoom itam ñu ngi ci jàpp bu baax ak soxna yi jigéen ñi jàpp ci lool ak uh, soxna mbàkke mbàkke yi tubaarkàlla ñoom itam ci niitu maam awa ak soxna may macha allah ñoom itam jàpp nañ ci liggéey bi jàpp ànd ak nun di nit bu baax a baax a baax ba nga xam ne nii ni ñu ko bëggee woon moo nu may doole ba ba ba nu àgg ko noonu. waaw mu ngi ak sant itam sunu mbokkum taalibe nag la muy soxna Ndey Mari Seen moom itam jàppale nanu ànd naa nun ci bis bi ba ni mu deme mu demee ni ni sant itam soxna Ndey Ami Mbàkke moom itam jóge Touba ñëw futteku nekk ca waañ wa ba kenn mënu koo xàmmee ak taalibe yi liggéey fa liggéey boo xam ne bii liggéey bu am solo la wàcce boppam moom itam nu ngi koy sant moom itam di ko gërëm nu ngi sant daal dëkk bi tubaarkàlla ñoom itam jàpp nañ ci ñoom ñëpp jàpp nañ ci jigéen ñi ci dëkk bi mbootaay ci dëkk bi ku ci nekk jàpp na ci yëkk nañ seen seen alal dugal ci jox nu ko kon nag maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm a ah, damay bañ a lim nag waaye nun xam nañ xam nañ xale xam nañ seen bopp xale ñële sol suile yi ñoom ñëpp ay jëwriñ lañu yoo xam ni gis nga leen nee ñu taxawee mel ni caméraman yi rek lu jag ñoo ko jagal te kenn du leen gis noonu la ñu taxawee ànd ko fondation yi ñu ko àndal ba lii demee nii mu demee ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jërëjëf léegi nag sëriñ bi rek la ñuy mu mel ni sëriñ Galas mi ngi sant bu baax ñi ko yàlla booleel nee na soxna Ndey Ami ak soxna Ndey Mari nee na ñoom ñëpp ku ci nekk futtiku nga li nga am lépp nga def ko ci bis bi ngir jëmmi sëriñ Tuubaa mu ngi leen di bàyyeeg alaaji moom Lamine Baara nee na cantuk njabootu alaaji Baara nag la leen di bàyyeeg seen baay bu baax yàlla na leen alaaji Baara fay suñu bàyyi alaaji Modou mbay Samb ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziar mu mel ni dañoo waxoon daayira isbu tarxiya du doon genn xasida sax ñoo koy tijjil sëriñ bi ndax at mu nekk ñu tijji ko kon bisimilah sëriñ bi nag jox na kàddoom sëriñ Cheikh Baara laat kon daayira isbu tarxiya bisimilah. الله jërëjëf waaye Hizbut Tarqiyyah ñu jël bisu sëriñ Baara delloo ko sëriñ Baara sëriñ Baara Lahat maa ngi lay nuyu bu baax baax <coughs> di nuyu nag bu baax sëriñ maxtarka di la ziyaare bu baax dégg naa it sa wax waa Hizbut Tarqiyyah li ngeen doon jàng nag bu ko sëñ bi waxul woon yàlla musiba am sëriñ bi rekk jàkkaarloo yàlla ni ko rabbul wara sunu borom ni ko ah kay mu ni ko yaa def muhammad xayrul mu ni ko ah mu ni ko yaa ma def xaadimu xayrul wara mu ni ko ah kay mu ni ko yaa ma jox simaamul wara mu ni ko ah kay mu ni ko irham jami al wara yërmaane jooju nag sëriñ tubaa am moo waral ñun ñëpp ñu war a góorlu ci yërmaane di nuyu nag sëriñ Cheikh Ahmadou Bamba Touré ak njabootu sëriñ Saliou Touré gépp di wax nag ni bu dee ci sëñ bu mag bi benn bëy doy na juróomi ati maa yomba tegul cin tegaluñ ko cin mu ànd ak i noon bàyyi ay noon ànd ak i noon jëm ci noon jekku ay noonam xëhër naa bil turan salimtu min al ahdaayi turan waaye afawtu anil ahdaayi turan mosoo ko digg ci àddina ku ma sa jekku say doon jekkili leen sëriñ bi rek jekku ay noonam jéggal leen kon loolu doy na sëkk ci Ahmadu bi ci des nag muy Cheikh Ahmadou Fadal ah, laa ilaaha illallah biñ ko dee noo tudd dañuy laajal alxuraan buñ ko dee foo dëkk mu ni laajal alxuraan fan nga juddoo mu ni laajal alxuraan kañ nga judd mu ni laajal alxuraan allah ji fàllu mbàkke noo tudd mu ni alxuraan nee na fadilullah yuuti man yasha wa annabi fadilillahi yuuti man yasha wallahu sul fadil azim turwaa ngoo foo dëkk mu ni alxuraan nee na lazina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum wa usnul mahab dëkk baa ngoo foo juddoo mu alxuraan nee na walaaw yedduhu ila daaru salaam barab baangoo kañ la mu ni subhaana lazi asra abdihi laylan min al araami ila al masjid al aqsa rasulullah dañu lay ma ni cëpp ahmadoo ngoo kooku mooy alaaji dañ ciy mos loolu ba beneen bi ci des maa ngi ñëw nag ci 69 juróom-ñeenteelu sëtu sëñ Touba juróom-benneelu xalifa sëriñ Touba alaaji mooy 69 ni yàlla bëgg ab jaam mel ni alaaji mel na ni li yonent bi bëgg ab jurit mel ni alaaji mel na ni ni Cheikh Ahmadou Bamba bëgg ab murit mel ni ji mel na ni kooku mooy alaaji baara li ma ciy mos nag moo ni man moo ni maa ngi ñëw Ndakaaru bu kenn xam fu ma ne ku dul yow ma ne ko ah mu ne ma wax ñaari pàkk yu bari coow laa bëgg seet si ma bëgg na yow nga xaar ma ma ne ko may ma ma jëw la ma woo mbàkk yu fay ndax sama mbokk te nit ku baax la wax ko ni ko yaa ngi ñëw mu ne may naa la loolu waaye état bi moom bu ñu xam fan la jëm man ko dangay ngay sëñ lu di sëñ Touba ma wax jëwriñ mbàkk yu ni ko allah yaa ngi ñëw de ne sa kër lay jëkke mu ni ma nga ni ma ni waaw mu daw lijjanti lépp ñu ñëw biñ duggee ci oto bi mu dikk ba ci pàkk bu jëkk bi ñu ma tibbal suuf man mi it maa tibb suuf gis nga làmmi netti li maa fekkee mooy ub làmb ji maa tibb suuf mu ni ma du fii du fii de ana beneen pàkk ba man ko boo doxee nag senegal dañu xam ni xalif général lay dox duggal ci oto bi ma dawal mu dugg maa dawal biñ egsee Masaalikul Jinaan maa tibb suuf bisu altine mu teg ci loxo gëmm lu yàgg ni ma fii la man nag la ma jommal moo di ndox mu bari moomee nga xamante ni ku taxaw dalay wan mu ni ma tey la lan ma ni ko àllarba mu ni ma boo te altine mu ni ma bu àllarba tàmbali leen liggéey bi te na ngeen fi jullee tabaski te billaahi suñ digganteeg tabaski fukki fan ak juróom-ñaar moo fi dox jëwriñ mbàkk yu jàmbaar ji ni ma waaw nu nuy def man ko bàyyil ma dem sapeur pompier àbb ji ay moto pompe waxi allah ji waaw la sant te barab boobee soixante cinq mille mètres carrés la Cheikh Moustapha ñaari meetar carré yi ñu tëj suñ Touba ci Kangel Diop man mii maa nekk adjudant major defaraat ko ba boo fa àggee man faa julli Masaalikul Jinaan maa ko jëkk a teg bët ki ki ngoom màkk yu fay wan ko pàkk bi rocc ko daw waxtaan ceeg alaaji te booba toll nañ foofu may na ma ci boppam lu bari billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa alaaji ba ma wanee ginnaaw laa ba ñëpp kon leer na mu tibb suuf ni ma fii la ma dem ab juróom-ñaari moto pompe 24 heures sur 24 ñu ngi mbàkk yu moo fa def ñetti téeméeri camion suuf àllarba joojee lañ ko tàmbali fa lañ julee tabaski fukki fan ak juróom-ñaar pàkk boobu nag titre foncier la di ñaata ab président Ablaye Wade ci jëkk dugal un milliard ne dañ ko def titre foncier ndax ñu ko defee pàkk bi buñ ko defee bàyyi attan nañ ko indi gilawaan yi alaaji nag balay samoon na pàkk boobee mu def ko ci turam wala mu ni nañ ma ci daggal nangam te moo ba mooy sëñ Fallou mooy sëñ Touba mais alaaji ñetti keef yi moo ko dal gor la góor la géer dëgg la ñu nem sëriñ Saliou mii ah. waaw man mii maay wax ak moom waaw man mii maa doon jottali mu ni alaaji baara dégg naa la sama am sëñ Touba ñoo ànd man ak moom ci kanamu sëriñ Saliou keroog bi nga xamante ni xar yooyu ngay wax ba mu ko wàccee ñu wax ko sëriñ bi sëriñ bi dafa sukkootu nii ni ni Moussa Niang xari alaaji baara yooyu de dañ ma ko joxal sama njabootu bopp ma barkeeloo ko kon alaaji moo ma ni sama signature du Mbaye sàmm ma ni Mbàkke mu ni sama signature ak sama coup de lu muy may nit du ma ko xañ alaaji amul morom parce que ma du Bamba ku jóg taxaw ni jërëjëfe Serigne Touba waat naa ci yàlla sa ajo dana faj waaw kon nag buñ toogee tey ñu toog nii tey ji jox ma 4 millions sëriñ bi ku mel ne alaaji amul da ngay dem màkk ma ni ko son naa ci yoonu màkk bu ni ma di nga dem par force maay sëñ Fallu maay sëñ Touba damaa bari bor mu ni ma walla 4 millions fayal bor yi jàkk di ma attachement il faut partir à la Mecque ko ni nga ko bëggee laa koy def ma dem màkk ni ko waxoon naa la ko am nañ fi weer kenn jurutul dara te màkk ku say réal jeex say rey jeex mu ne je je comprends bien parce que j'ai j'ai fait fois danaa la yónnee ñetti trois cent euh, trois mille euros ñooñu nag foofu nag ku ci ne dinaa ko may cent réal cent réal yow nag dinaa la jox trois cent réal alaaji noonu la def ba màkk ja jeex 2008 màkk ju gën a metti aj googu amul Alaaji Baara kon buñ demee ñu ni bis bi nag dañ ciy sant Alaaji Baara sëñ Fallou jërëjëf man maa ngi yow bokk région de Thiès sama bàyyi doon premier ilimaani Thiès te nag dootuma gone barab boo doon ngóor si ba doon fa góor gi ba jur fa ngóor si dootoo xale waaye billaahi musuma laa dégg ci dara lu lu jàpp sag njàmbur ak bëgg sëñ Fallou te sëñ Fallou nag ni Amérique rawe Guinée Bissau barke Cheikh Ahmadou Bamba ni Amérique rawe Guinée Bissau la Alaaji Fallou rawe sëriñ si bokk la kenn bokk la kenn kenn kon bu ñu demee ba yàlla dogal liggéey bu rëy bii nga taxawal ko muy jumaa ji man mii ma àndoon ak sa maam waxtaan على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وانت تقنص الكلام منا على عرئيس الورود مولاك عبدك القدير مستصلى مسلما على مستوفي الفلاح ناداك عبدك القدير مستصلى مسلما على مستوفي الفلاح ndaxte yàlla yàlla nga yàggee sama sarax li nga ko tëggoo alaaji jaay si jaay sa suppe sa teele ba sa xarit sunu bàyyi léegi tamit bi ni départ appel WhatsApp dama ca aduna li ma boo yeggee léegi sax mu soxlaa nangu naa takkusaani ajjuma yi nangu naa yoor yoori ajjuma yi ak boole ajjuma waaye maa ngi ci Amérique sama xel nekk ca moom ñu ngi lay siyaar te di la nuyu di wàcce siyaar bi ci Serigne Gallas Khady Gueye sa doom sa rakk ju baax ji nga xamante ni yàlla dogal na Serigne Bassirou kan alquran nii moo ma waxte moo ko waxte kon jokkale ak moom may liggéey kees ba si jottale ma jàllale ko màggal bi bis bii sëriñ bi ni ma na nga ci ñëw ndax sa jaarale bi kat neex na ma lool kon nag Mbàkke ñu ngi lay seeral ni jofeer bi nga xam ni am na teew ko ak kóllëre gañ siñ gaase njabootu Alaaji Baare gi ñu yàlla boole ñu koy sàmm mu teel lu baax ne mu yëkkati kàddu muy Cheikh Abdoulaye Sëriñ Baare mu Cheikh Abdoulaye mun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين قال لهم ñaan mu yàgg fi tëwër di ñaan eh, sëñ Alaaji Baara yàlla yokk leeral di taas bi ci barkeem moom ngay xam ne moom la ñu taxaw bis bi ma wax ci kàddu sëriñ Moustapha mu sëriñ Alaaji Baara xam naa du doon luy yokk sax waaye luñ ci mën a dugal rek ñu dugal ko ci sëriñ Moustapha ñu ngi lay nuyu di jël nuyoo sa rakk yi yëpp bu njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine góor ak jigéen mag ak ndaw ak bokk taalib bi yëpp jël seen nuyoo di ko teg ci sa ñu bu ñu dugg ñu ngi dégg kàddu wax ñu ngi nuyu Serigne Mbacke Fall bi di nuyu ñi nga xam ne mooy njabootu euh, sunu maam bu naa ma géej di koo xam ne ñoom xamoon nañu ko wax dëgg daan ñëw buy bind sëriñ xaalis Mourou Ba nekkoon nit ku rafet xalifa la ndax li ëpp ci loo xam ne sëriñ xaalis daan na ko xalaat daal ci diisoon moom kon ñu xamoon ko bu baax wante li ñu ko doon xam-xam nag sëriñ Galas bi jikkoom ci li nga xam ne saa bu ñëw fii moo ñu fi indi ginnaaw sëñ Moustapha ñii nga xam ne lu mu nekk ñu nekk ndax sëñ Moustapha nga am ndimbal ndimbal mooy diis gan ba pare wala tool yi te kenn mënu ko weete loo am bokk ko bu as bi mu am ak fii ko yàlla teg. ñu toogal ci Cheikh Mamadou Lamine te kenn du la tibbal fenn boo sukkee ci kat solo ko sax du mën ci biir ci moom laa gis gisaat na tey dafa daa ku ne mën naa seede ci moom waaye man naa maa seede ci moom moom mii ndax nit bu ngeen àndee dem màkke ñaar fukki yoon ak ñett dafa naa te yéenay bokkut ne yéenay am dem ànd ñoom yéenay dem yéenay wàcc fa mbiri yéenay am dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéenay dem kër Ali Fass ah, yéenay nii eh, moo nekkoon seen dox lii sëñ Moustapha def mooy def dafa ndax man maa ngi fàttaliku eh, ñun man nii mas naa ci daara yàlla dogal daal di xaw am lu mel ma ren Touba Touba bi ma agsee Touba parce que suñ Cheikh Thioro nga xam ne rakku sëñ laaj la yem ci biñ ci yemee daf ne ñi fuñ fuñ jógee ñu ne ñoom dañoo randutoo am nañ fa ñaari weer sëñ laaj xamu fan la ne xam nga loolu amatul leen léegi ku ku koo bokk lépp sax bu la bu bu yendoo ci sa kër sa gannaaw bu demee donc moo tàngal nga def te moom loolu amatul léegi sëñ Moustapha nag dafa loolee la def lii tey tey itam du asaar ndax soo na euh, Aminata Lo ba mu nelawee sëñ Baara dañ koo jël jox ko sëñ Fane dañ koo jël jox ko soxna soxna Soxna Ba Awa Bousso mu boole leen ñoom ñaar. nam leen boolee yoon ñi ñoom ñaar def leen lépp yàlla dogal noona lañ juboo àndee ko di di di dox di wax di jëf ba li leen fa yàlla jógee benn fu ñu réeroo ku ko wax ak la nga xam ne yàlla dogal ñu ba ñu bàyyi ko itam ndax soo na xam ne moom lañ ko boolee loon moo tolloo woon ak moom jamono suñ baara ko ñetti doom kon lii du tey ñu sañ ci Tuubaa sañ ci guñ bind mu dem ba ba sëñ sañ ci nit dimbaloo ñi kon seen lépp daa mos a nekk benn te sëñ Moustapha yow loolu xam nga ko te yaa ngi koy jëf ndax doon mag nga te magal a yar te ku yàlla dimbali nga itam ndax am na loo xam ne loo nekk yow munoo ko bu la mag yarul munoo ko bu la yàlla dimbaliwul mënoo ko kon lii nga def nii ñoo ñoo ngi leen cay sant bu baax sëñ Alaaji Baara nag li may wax ci moom du bari ndax li ma ci kenn mënut a wax ci moom ba jeexal waaye ku ne da nga am sa côté boo ma boo xam ci moom boo mën a wax am euh, daayira ay daayira yoo xam dañoo nekk ma ma sant leen saa bu soble ñoree ñu dajale soble ak dara ci xaalis ku fi deel sëñ Tuubaa ñoom ñu sëñ sabab ñu fekkan li may wax ma ñëw bi ma ñëwee ñu ne alaaji kat xaw ma weer xaw ma sax mat na ko yoo xam ne kiiwul nangam ak nangam ba defe naa sëñ Samat ak yegg ci moom xaw ma xaw ma xaw ma ku ci ah defe naa sëñ Samat la ba mu yeggee ci moom ba xamal ko ni ko man am na nee nañu lu ma weer génn daanaka boobu sëñ Samat bind kayit ji di ko def waaye daa daa yàble ma dem ca biir weñ ja ñi toog ma toog ca biir ñu ne nit ñi toog ci biti mu génn ba mu doon wax dara daa xamal mbooloo mi ni sama doom jii kat ak ñii mu àndal ñoo tax ma génn waaye nangami weer ñu xuma nangami fan génn nga xam ne loolu. sagal sagal si sagal sa sa bopp la ak bëgg ëllëg ñooña boo demee ko ñoom ñu xam ni nga toll ci béréb bi loolee man loolu lay tudd ci Alaaji Ba beneen ba ca topp mooy wa mooy woyof ba ñëpp xam ni kii bu woyof ndax dégg nga documentaire bi biñ doon wax léegi waa ji ne Alaaji Baara su lépp la rek. te gis nga martaba nit ku ko bëgg la ñuy jëkk a def gannaaw boo boo ragalee yàlla ragal yàlla buy dëgg ba noppi la day woyof tooy foo bëgg a yegg ci martaba mën na faa yegg ci martaba te alaj baaram la defa ndax jot naa ne bari na loo xam ne seq na ko keroog ba nga xam ne sëñ si mi dem di di di war a jébbalu ji ànd ak sëñ Amadou Moxtaar mu daal Kudos ak sëñ Abdou Fata waa daal Kudos man bi ma ko daf ne ma euh, dinaa wax koo àndal ngeen dafa naa seen galab sax la ma boole ni ngeen dem ca néeg sëñ Fallu ndax sëñ Baara bu dee ñëw fii du ko war a teeral waxuma la nag mu dafa def bopp ñu ànd dem ba yegg bañ yeggee ba toog ca néeg sëñ Fallu ñu ko mu ñëw ba mu dikkee da ko ne man bayuma def lu ma lenn lépp loo xam ne lu may def lu la lu yoon lu yoon soxla lay doon bu boobaa yow mii yaa def bay sama jawrin lu may wax yow laa koy wax lu ñu wax nit ñi yaa leen ba kon sëñ Moustapha sa parole bii may wax du gàtt yàgg sëñ Gallas nag moom euh, dafay am poids bu nit di toll boo dee wax day mel ni bokkam ya doog a tax ndax buñ nee sa wéju bu wàllee la jóge ñu ne njabootu alal baa ñu mën a seq du tere ñoom lañ xam ci yow ñu mën ko wóor nañu ni. li li tax di bu nekk nit ku woyof la nit ku amul yar la nit ku amul teggin nit ku amul tànn te billaahi li ma wax du ma koy du ma ko laaj ndax man boo ma see laa ilaaha illallaah man loolu seede loo xam te man loolu laa man du du fu ne laay dem du fu ne laay ndax tey jii baa nga màggal màgg tey woon barki léegi jóge ko dem Ndiobo Baye jóge Ndiobo Baye ca raaraan bi laa aw ngaay wëndeewu jaar Touba aw ci autoroute bu nekk ruq bu nekk dugg naa ko soog a ñëw fii de te sa yar sa teggin sa taalibe moo tax ndax man lu mu may doon ci adduna rek bu ko Sëñ Tuubaa bu ko bu ko Sëñ Tuubaa lëlul ak ak ak ak mu ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak ragal yàlla ànd ak bëgg say bokkoon ànd ak ñoom man mën naa muy yoon. te te ku gis njabootu Alaaji Baara mi ñu toll xam ne yow ànd na nga am say bokk tax bokk suñu borom dañ doon wax bi Jibril ba Jibril malaaka ba ko doon ñëw doon doomu aadama ngir ñu suñu bokk li suñu borom diggee tax bokk te yow loolu yaa koy def kon sëñ Moussa Ba mi ñu permettre ñu mën a wax ci turam ba li ñu xam ci yow ñu mën koo te ku la ku bu àdduna sépp àndandoo woon da la seere te sa bopp yii yëpp jóg sa bopp léegi kenn jógul àndandoo wuñ seere la ñuy seere du waaye li say bopp li si yii moom la ñëpp di seere ci yow waaw Mbàkke Kajoor de ba mu ma di kaw woowoo ma ni ma damay màggal Tuubaa bi joxoo ma ab joxoo ma joxoo ma ab leetar yónni woon damaa jàpp ne bés bi sama bisa ndax man lépp bi sëñ Moustapha ci njaboot sëñ maa ko moom wallaahi ndax maa nga ne loolu lay jot ci mag la fuuf ak ku nekk xam-xam fuuf gën laa jógee sëñ Touba fuuf te génnewul fu mu la gis bala bala mu suñu sax man damay gisoo ngir bëgg bu ma euh, jéem bi du ma la kon nag te kon sëriñ Moustapha ñu ngi lay ñaanal yàlla yàggal la ñu ngi lay ñaanal yàlla la di dégg euh, di nuyu sama mbokki Cëraba yi euh, ndax ñoom wax dëgg yàlla fukki at ak ñett maa ngi koy jóg di ñëw ci ñoom bàyyi seex laa fi doon ba tey jii fu ñu dajal ñun ci ci ci mbooloo yi wax dëgg yàlla la war suñu diggante ñoom dara ñu ko def sëñ Moustapha loolu itam la ko seet kon may dégg nit ñi. waaw waaw waaw sëñ may dégg nit ñi booloo nekk benn ni ñu ko alxuraan digal te xam ne jullit jullit mooy mbokkam te kenn ku nekk ci noonu yéene boppam li nga xam ne li mu yéene morom li mu yéene boppam mu yéene ko morom jullitam bu bëggee ak ak ak jullitam la topp mooy njaboot sëñ Tuubaa ak njabootu sëñ Baale ak Baale jë jabootu jë jabootu Kawlaxan ak Yacouba Tall ñoom ñëpp fi woon lu dul góorgóorlu ba sàmm diine gi saxal ko taxawal ko ba dara du boobu te ku ñu ne taalu jàpp ba nga xam ne taaloon nga ko yaakaar naa ne ña la fi bàyyi woon buñ dikkoon lañ fi bàyyi woon ak lañ fekk danañ xam ni wutoo ko te wute wax naa ko ci màggal man ne sëñ Mountakha mbooloo kenn ku nekk bàyyi ko ci taalub jàmm te taalub jàmm ba ko sama am bàyyi woon ëpp na ceeb daal di boobaag te daal gën a tàkk waaye fayu yéene nañ la sa toogaay bii ñoom ñoo ànd ñoo dikk taxaw ci sa kanam njël ñaan te bët mën naa gis lu ko neexut nopp dégg lu ko neexut waaye tànk moom dem ko neex kon sëriñ di sant bu baax kenn ku ñëwoon ci yéen mu doy te fii ku ngeen fi ñëwee ñëpp ngeen fi ñëwoon waaye nag jikko bokk na ci bokk wóor na ma ne jikko moom bokk na ci te sa moom muy jikkoo sëñ Gana Messere te sallallahu alayhi la ko yàlla tàgg ni ko wéy naka laa laa kullu fin alim te ku ko ci mën a jullee dëkk bàkkaar xoroy seet mbiri naat da déedéet jikko te jooju moom kon ñuy dénk ñëpp ñu sax jaamu yàlla dénk ñëpp liggéey dénk lii xew yii xew ñu dénk ñëpp amee loolu mooy lan fukk yu ne nit wax la di ëpp léegi juróom-ñett la moom du dëgg te te te du leen du leen def problème nga xam ne dëgg ko te du leen def problème nga xam ne kon dëgg ñàkk wax dëgg xamuñu ko. beneen ba ca topp mooy làmmiñ ci boppam boo demee sawar ña ko ëpp laa la wax rek seen i làmmiñ leen bëri sëñ Sidi Moxtaar daf maa ma wax ne ma. Euh, làmmiñ ndax seetlu nga ni ko suñu borom def man waa seetlu am na lu ma ci de mun ma fanweeri bëñ ak juróom ak ñaar la jël ñu wër ko ñeent fanweer fukk ak juróom ñu ne ko képp ñu daal fa la yem mu ni teg teg mu ko képp encore mu ma kon xam nga ni kii dansé la sëñ bi ci boppam moo moo wax loolu de mun ma kon xam nga ni kii dansé waaw ndax bari na lu yàqu bii. parce que ku mën a doon ci àdduna fii xam ne ay naw la lañu àndandoo nekk benn fu ci nit nekkul da nekk na sama faa war a nekk waaye ne ko nga kontaan ànd ca boobu yëgoo nit ñi ko jógee yow itam yow la yow mi ñu wax dara ci nga di am mbégte ñaar la koy wax bu ñu jógee teel la ñu dem lañ doon wax sa mbokk moom yooyu tam la ñu la ko gaaw na du mot a bàyyi xel la ñu rek euh, sëñ Thierno Mokhtar waxoon na ma da ngay fal sa bët te fal sa nopp nee na jamono jii soo ci bëggee mucc boo na nga fal bët fal sa nopp euh, na na nga saxoo noppi ndax lu lu noppi yàq wax mënu ko defar waaye lu wax yàq bu ko noppi bëggee defar defar. ñu ne bul dem buy la wóor bul dem boo xam ne boo ko demee doo mat muus te soo ko def faa war a toll ni gaynde man ko loolu mooy tegtal mun ma bul la wóor wala buy sa wóor nee na manees na laa bañ a bërëb te safara la ko moom nga woo la bàyyi boo ci bokkutoon dés la ko woo kon sëñ Moustapha li ñu bëggoon wax ëpp na lii waaye ñoo ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di dénk waa réew mi ah. gone yii nga xam ne dañoo bàbbeeku wax naa ko ca foire ba guddeeg bëccëg subaa ngoon ñuy dem ñeneen bàyyi ñuy dem bu leen neexoon duñ fa dugg suñu gone yii lañu soxla ndax xale mooy tabax réew bu leen neexoon kenn du fa dugg Mexique dafa la jeeroog a jógee te gone yi jaar fii di jaar seen doole ñu ngi leen di bàyyi ñuy jàll àgg nañ ci amatuñu mag fokk ñu root ay ndaw fokk ñu root suñu ndaw ñii yóbbu ñii maa dëkk yoon bi ñii yàgg tabaxal leen seen réew bu ko defee ñun ñu toog di xool jaay kër ci juróomi million wala fukki million jox ko gone mu def te xamoo loolu kañ nga ci jot nga nga jàll ca cinquante la wala ca feneen ak feneen ak feneen wala nga àbb kër di ca dugg loolu amul benn njariñ gone yooyu dem ku te eh, li moom dañ la sant lépp loo xam ne yaa ngi ciy dugg te bi nga ciy dugg wóor na ba sa bakkan dana ci des a warul dal te te te te tëralin bi moo jiitu lépp tëralin bi moo jiitu lépp kon ñu dénk nit ñooñu itam ñu bàyyi xel nit bi amee ñeent fukki fan ci biiru ndeyam lañ bind lekkam daara du ci esaat mënu koo yokk mënu koo wañ nañ ko nañ ko të nañ ko tëral rek noonu lay def li li bàyyi mel nii nag su amee. phénomène yi nga xam ne day yàq réew mi dañ koo war dañ koy wax wala boobu man waaw li ma li may wax nag man la engagé ma li may wax nii man nii la engagé kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di di dellu gën a am mbégte di am mbégte yarakam yii ni ñu toppee ci di am mbégte yi nga wootu Alaaji Baara yëpp te góor ak jigéen waaw ndax nit ñu am ngor lañ nit ñu am doom lañ nit ñu am kilifa lañ te loolu dong nag moo fa nekk am ngor jom kilifte waaye bu ñu nee kuy sama ji ñu ne El Hadj Ba ñu ne am nga ngor am nga ah, am nga jom nam nga kilifte kenn du laaj koo ko jënd ñooñu gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf Serigne Cheikh Bara kàddu yooyu mu wax dama ciy seede benn rek sëñ Moussa sa wéy di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara moom wax ci làmmiñam ni ma keroog bi nga xam ne nii suñ Bara noppi ci man indi ma ci sëñ Fallu benn mi ngi noonu amul lu ñu def ci moom.

avant pendant et après. sant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd ak ngeen di ànd ak Thiénaba TV. wala say bi ahadun yab. xëy na